nag ci artu xalifa général des Tidianes nag taxaw mu wax jàngo bi nañ taxaw ñu wax ñu wax ak njiitu réew mi ñuy encadrer les marches buñ demee nag ba jàpp ne heure bu ñu encadrer marche dafa am ay leneen la xamante da cee xew à partir moment dañ am lu ñuy wax ay alibi pour mën a wax ne interdire les marches ah. Pamata est-ce que partage li nga xam mooy inquiétude Tamsir Bakhoum Euh, non mais inquiétude bi bon. du ma man dafa mel ni Sonko moom il est préparé de soit on on m'arrête soit on me. ah non loolu loolu ay ay waxu politicien la rek. Mhm. mais bon je je suis sûr que ni tey euh, si jàmm nañu si jàmm nañu le Sénégal di mujj euh, te si nañu jëm c'est-à-dire histoire bu ñu am du du du ay caaxaan yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy changé e je pense que ni tey aussi dëkk bi dafa am ay ñaan ak yooyu yëpp buñ ko buñ ko di xeeb. coronavirus bi rek wane na suñu particularité parce que bu nekkoon ay affaire de médecine ak i santé rek yaakaar naa ne ay junni junni doomu aadama ñoo si ñàkk seen bakkan mais li ma bëgg wax tey xarit euh, si la cest dire mhm. il faut ñu xam ni que jamono jii nii même Ousmane Sonko sax communication boobu muy def. Mhm. dafa mel ni un peu koo xamante ni dafa xaw a ragal cest dire boo demee bay naan ay buñ ma jàppee ak ay buñ ma rey. c'est-à-dire voilà loolu. voilà il est devenu plus flexible. loolu non non je je trouve que ni. loolu du mhm. du du communication bi wax parce que en lan moo fi indi ay jàpp ak ay rey ci manifestation boo xamante ni sa à lu lu simple la quoi. mais su fekkoon dafa am ay sources yu ko wax kon ni ko Tamsir Ba xam. non ne daa am ay sources. su fekkee loolu lañ ko wax aussi je pense pas loolu je pense pas. nit ñi parfois ñooy ñooy ñooy demee passion rek mais li ma bëgg wax mooy. Ousmane Sonko war na mën a organiser dix mille manifestations. Mhm. te du ci mës a am benn inquiétude di xalaat sax dañ koy jàpp cest à bu ñu dugal suñu xel yi que ni tey Pape Makhtar ci rajo bii muy wax. war nañ ko mën a jàpp tëj ko ci kaso. war na utiliser. parce que utiliser na fi ñu di ko dugal kaso yooyu. mais loolooy yoon parce que xam nga lu tax gis nga kaso. Euh, gis nga kaso gis nga kaso du ay caaxaan moo fay dugal nit. Mhm. war nañu mën a quand même bàyyi mbir yi nu mu war a toll ñu toll la ko noonu cest à bu ñu dem ba ñuy dundal ci benn peur ambiante boo xamante ni ñun ñëpp dañuy ragal quoi mais malheureusement Pape Makhtar loolu moo xew ngay wax dara sax nga ñu lay ah, li nga wax di xaw mais parce que ñun ñoo leen ci bàyyi euh, bi contexte boobu lañ nekk ñun ñoo leen siy bàyyi il faut il faut que ñu fàttali leen ni leen le pouvoir euh, il faut ñu fàttali leen que le peuple a toujours raison te jamono jii nii askan bi bu nekkee dañu bëgg def manifestation yoon moo leen ko permettre te dañ koy def si jàmm ak salaam te dara du si am. Mhm, mhm. du arrestation du rey nit cest à il faut ñu delluwaat ñoom ñu xam kan moo yore le véritable force maa leen dégg naan ay force restera euh, xaw ma. Euh, à la loi euh, yu kenn xam ay caaxaan la. gis nga terme yooyu noonu dañ koo jëlee fële indi ko fii le peuple a toujours raison parce que le peuple est souverain marché bii passé ku la tax woon fii day wax waxu waxu loi c'est-à-dire xam ni ñoom manifestation. tey jii warul sax tax ñi naan ay rey nit ak wala ay arrêté nit mun ta ne. Mhm. manifestation ñoom bu ñu ko bëggee amal dañ koy amal ci ñu ko yoon santé te dañ koy def ci jàmm ak salaam. Mhm. bu ñu gëmloo nit ñi beneen mbir. d'accord loolu nag président Macky Sall am na ci ngandam responsabilité moo tax man la léegi xalif yi sax waruñu di wax ci yëfu ñàkk fayda yi manifestation man dama jàpp ni lu banal la lu ñu wax a askan bi am na ñoo xamante ne d'accorduñu dem nañ place de l'Obélisque ko di di manifester lu xalif bi wax mais yàgg naa ko fi wax. ba ñuy manifester am na à côté ñu doon continuer seen activité économique. yàqalu leen dara mais tere manifestation Pape Matar tax na ñett nit ñàkk seen bakkan. donc c'est normal xale fi wax tamit. non waxuma waxuma loolu. Mm-hmm. mais waxuma waxuma loolu mais dama la ni c'est-à-dire manifestation bu ñu ko banaliser. Mm-hmm. muy am ñu banaliser ko. Mm-hmm. coow li yëpp du ci am. mais fi ñu teg manifestation moom la foofu la yeggul en fait président Macky Sall il faut mu accepter ay contradiction moom mënul nekk tey jii nekk buur boo xamante ni comme waxee day jël di lu ko kenn ko fi waxee loolu mënta ne te nit ñi di wax bu ñu leen gëmloo que ni boo waxee rek da nga nekk en sursis comme li ñu bëgg gëmloo nit ñi ko naan Sénégalais li ñëpp a nekk en sursis parce que dañu bëgg benn peur boo xamante ni généralisé la ñëpp ku ne toog sa kër sax di commencé jii ñu koy imposer Sénégalais parce que Sénégal dëkku jàmm la te dañu am histoire oui euh, mam mbiram laa bëggoon a sax euh, laaj bi. Mhm. ndax ëllëg dèjà fi nekk nii nit ñëpp ku nekk yaa ngi taxaw di xaar ndax dañuy comme li mu wax nee na du wax autorisation. Mhm. wala kii mais bàyyi ñu manifester lay wax. Mhm. Euh, ëllëg tey baaxum mi ngi wax ci probabilité yi bu fekkente ne interdire nañ ko Ousmane Sonko na toog ak yooyu yow lan nga jàpp bu fekkente ne ñoom lankal nañ leen que ni seen manifestation du fi amee moom la ñu war a procéder. non mais de toutes les façons nga xamante ne nii mooy le préfet. bu ne dafa interdire manifestation bi da koy teg ci lu leer. da koy teg ci lu leer. manifestation nekkul ne président Macky Sall moo koy maye nekkul préfet nekkul gouverneur constitution moo koy maye. nee naa bu nekkee ne diin ak lislaam la constitution mooy alxuraan mu lii mën a jàppee euh, arrêté euh, leneen ak leneen loolu ay aaya la. aaya mhm. mënul sut euh, nu mu turati. mënul sut alxuraan donc euh, hiérarchisation des euh, de des normes noonu la demee donc tey constitution bu nekkee ne may na leen ko am nu mu turati euh, lu ñu wax ne moom mooy encadrer marche boobu mais préfet bu nee da koy interdire na wax ne trouble à l'ordre public amuñu suffisamment de force de l'ordre pour encadrer ko te loolu ban Sénégal nga koy wax. <laughs> benn daal biñ ci jot a gis bu ñu interdire déjà. Euh, uh-huh. mooy euh, bu Tambacounda voilà bu Tambacounda li ñu joxe nag comme alibi daanaka mooy. que ni menace euh, réelle de trouble à l'ordre public beneen bi topp mooy violation de l'article 61. Uh-huh. alinéa 2 du code électoral muy manifestation boo xam ne ëllëg lañ ko war a amal. mooy bu buñ yoon a jigéen soo amagoo information. na benn sortie di état Macky Sall mu daal di euh, teg lépp ci suuf daal di jëmmal li nga xam ne mooy euh, ni ko constitution bi daal di régiré mooy droit à la manifestation ñu daal dem suñu dernier point parce que temps xoj nañu Issa mooy njéeye bale am fële ca Ceuta ak Melilla nekk ca euh, mën nañu ca c'est à cheval entre le Maroc et l'Espagne n'est-ce yëpp di nga di nga ci tu vas <laughs> te prononcer Maroc